wooy ndaat naan ndaat naan su deewee jë salaamatan baay Fall yi maa leen di ziar bu wér a wér Zimo Afia la di wax ci Ndongo mi nga xamante ni moo ñu yar pikin mu def lu doy waar ci àdduna mi ngi mel ni ba léegi génnul àdduna ñu dem si Diop mu am lu mu wax ci Ndongo asalaamaaleykum àdduna bi yëpp maa ngi leen siyaar di xam ne tey la vendredi moo tax ñuy suñu xol dem ci Ndongo Lo Ndongo nga xam ne kenn la woon suñu ba tax na man Ameth Diop fal mbëkk barkeb yombal xiyaam maa ngi ñaan yàlla yal na yàlla woyofal suuf ci kawam ndongo ku baaxoon la bu may wax ci moom sama xol day xaw a kii quoi wax dëgg yàlla ndongo yàlla baax na quoi. lii ndax nettali ga maa bëggee galas. doomi maam Bamba boroom juma jee